képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bi rek di Mbacke Kadior TV luñ dugal ci dana ko am en exclusivité askan wi yeewoo ci diwaanu Touba jamono ji jafe-jafe rek lañuy ñuy dund gannaaw ñàkkum ndox goo xamante ne gu tar la siitum ndox génnul ci robinet yi lee wala ngay am ndox da ngay ba sonn léegi fu ak mbaa yomb na rek wala am ndox am ndox moom jafe na trop boo tëruta jóg doo am dara moom muy daaru marnaan pencum mbay waad Bagdad ndindi ak yeneen ci ay gox yu bari te wutul ndox sonal na leen ku ci nekk nag ak la mu am ma ngay daal fexe am tuuti ndox boo xamante ne dana ko mën a jëfandikoo Anta Touré fekk ko ci buntu këram ca pencum mbay waad sareetu mbaam nag la ñu taxawal ngir daal di a ut ndox bidon ñaar fukk la ñuy rooti mu ne danañ jënd dem di rootaani ci yeneen quartier yi nga xam ne moo leen jege Fambaye bi di ñaaw loolu tekki tekkaaral gi nga xam ne ñi yor wàllum ndox mi ci biir dëkk bi def nañu ko xam nga ne ndoxum root moom kenn mënu ko sa boo rootee bi yi fi ne nii balaa suba mu jeex ndoxum root takkanu ñun daal nañu dimbali daal moom sonn nañ lool bu dee ci état bi la nañu dimbali wax dëgg yàlla sonn nañ bu fekkee forage yi moo paan nañu defaral forage yi lépp lu mën a def ndox la jigéen ñi daal di gàddu ngir mën a dem ca xayra foofee nga xam ne dañuy jukki ci baaj ba fa nekk ngir daal di mën a am ndox léeg-léeg nga di ñaar fukki dërëm te loolu xam nga ne jukki bi dafa metti tàngaay bi boole ci gi nga xamante ne mu ngi waaj aksi imaamu jàkk bu pencu mbay di Abdourahmane Kandji di woo kilifa yi ngir ne daal di taxawu askan wi lobé ba nekk sama kër ba mu gëjee amal léegi ndox kenn xamul kañ la oto la jënd fay vingt deux mille mu defal ñu suñuy baaju nekk foofa ci loolu la ñuy li ñu doonoon loo xam ne lu kiimaane la bëgg ñu daal ko ci dimbale te yàlla tax lan mooy jafe tax kenn mënatul a am ndox ci diwaan bi tey ñaan kilifa itam ñu daal ci addu ca loolee ca la député ba fekk baax ca dëkk ba di euh, Cheikh Thioro Mbacké di sàkko kon ci ministre bi yore wàll wi ak kilifa ya nekkee ca mairie ba ñu gaaw li jëm ci mbir mu ni mel Cheikh Thioro Mbacké ak Papa Balla Gueye ñun moom loolu la a ñàkk di di dox ba nit am ndox te gis nañ ne depuis trois mois quatre mois am na ci koñ yoo xam ne at yoo xam ne depuis six mois ndox mu naan mënuñ ko di ànd ak bi waaw ndax euh, fan yëpp ñu ngi tournée mais kàddu gi genn ndox wax leen ci manqué ndox wax leen ci manqué ndox ndox bi ne autorité yi ay responsabilités ndax xam ne sax waruñoo yu ndaw la li koy dépendre lépp moo loolu jaariwu kon daal ñu